su remaniement ministériel bi comme euh, disait l'autre ben président la ñu fal moom mooy apprécier mais ñun am nañ droit euh, commenter analyser à quatre mois qu'est-ce qu'un ministre peut réaliser en quatre mois qu'est-ce qu'il peut changer euh, avant d'entrer dans les dossiers avant ngay maîtriser sax yow sa configuration département ñeenti weer ya jeex na nga ñëw nga ne da ngay man pour man les ministres qui ont démissionné ou qui ont été démis pour des raisons politiques ou politiciennes war nañ leen mën a remplacer waaye faire un remaniement de fond en comble te dañu ne ce sera en profondeur man jaaxal na ma ñu ngi xaar mu ñëw j'espère que rek du ñu fi indil gouvernement bu pléthorique mu nekk euh, QG de campagne ñu euh, Amadou Ba qui est candidat avec des ressources de l'État pendant que sur le plan social sur le plan économique sur tous les plans les Sénégalais sont vraiment cherchent la que du diable même pour le titre ils ne tirent pas la queue de ils la cherchent ñu ngi wut ñu ngi wut la queue du diable <laughs> donc moi je pense que uh-huh. en tout cas ce remaniement là vraiment pour moi je je questionne peut-être qu'il aurait pu y avoir un petit réaménagement pour remplacer mm -hmm. les autres mais dara du ñu fi bett suñ ko defee QG euh, euh, candidat Amadou Ba bi du ñu bett parce que li ma gis acte yi ñu posé hier jënd ay oto à quatre mois de la des élections di ko jox ay chef de village benn chef de village ni toog en tout cas sa bas dana ñëw xanaa ah mais en tout cas acte boobu démb jox nañ leen ba jox leen seen carte bi def ma jaaxal li tax mu jaaxal ma ah. bi président Macky Sall falo dafa traqué woon. les chefs les chefs de village. oui oto yaleen 2019 oto ya leen euh, Wade joxoon. bii yoon mu ngi lay jox euh, président conseil régional yi maanaam chef de nekk à la tête des régions. ok waaw en tout cas est que <laughs> on a traqué ici traqué nañu wër chef de village yi. ak ay chefs religieux. yu ñu joxoon ay oto. wëri leen nangu seeni oto. Ah tey bu ñu toogee ba mu des ñeenti weer. te ñu waxoon du ñu jëndati oto dañuy luweel sax ministre yi. oui doy na waar. wane na wane na ne. <laughs> ak monsieur le ñu ngi ci biir campagne.